ñeneen ñoo xamante ni duñoo am xaalis duñoo am alal ñoo war a ñëw jël suuf si di ñu bayal lu ñu dundee loolu nag lu ñu ni non ndax dégg ngeen li xewoon fanay li xewoon Jayel li xew wasadu li xew euh, partout au Sénégal euh, loolu dafa jaaduwul suuf si nañu xam ne buñ ko ñàkkee ñàkk nañu suñu bopp ndax bu fekkente ni seetaan nañu di joxe suuf si ay indien ay nangam nangam nangam nangam ñi fi nekk tey di bay ay espagnol ay n'importe quoi di ko tuddee geste mais yooyu suñ koy def mooy les zones économiques spéciales ñu ko seet seetluwul dinañu dem ba jimmi jamono ndax ñoom ñu ko jotee rek dina am fu ñu jaar ba immatriculer seen terre suuf si ci seeni tur ñu am titre foncier ndax lu ñu bëgg tey mooy fexe ba ku nekk am sa titre foncier comme ça comme ko doxaluñu mbéy mi comme ni mu waree ku si amoon tamit da koy jaay xale yi jël gaal mais loolu dafa warul suñu chef d'État yi ñu xam ni suuf si noo ko moom ñoo war bayal suñu bopp ñoo war a dundal suñu bopp ñoo war a am suñu jumtukaay gëstu ko